li lañ fi def yagul dara ñiñ ko def ci yeen doomu lapoto yi yeen la ñoo tegal leen coupe d'afrique ubbil leen stade ngeen ànd ak ñoom di tàcc di foo di ree ànd ak seen yaay yi jigéen ñi ak seen paa yi ngeen taggante seen biir fecc kontaan ne bëgg ngeen waaye li dee ci yeen ndogalu yàlla la pour yéen ci part de responsabilité tubaab de yéen a ngi koy xas yéen a ngi koy yekk lu ne waaye melul nii yéen ma may leen dernière vidéo nag. dama bëgg ngeen am lu ngeen bàyyi si. mooy li ñu leen di naxe. parce que ñi leen di nax dañuy jël liberté suule ko liberté. fekk liberté bi leen di may ngeen jël seen responsabilité ci réew mi ñu jël liberté di jëm ci seen passion musul bopp may nañu leen ngeen fecc may nañu leen ngeen sabaru may ñu leen ngeen collaborer may nañu leen ngeen nawetaan may nañu leen ngeen football mais yooyu yëpp ay fola mais mayeeku leen ba léegi ngeen jël seen responsabilité. voilà jeeg ji ubbil naa leen ligne bi ñëw leen ngeen wax Ndeye Khady ak fu ngeen toll ci moom ligne bi ubbeeku na lii moo fi xew ñi ko def nee nañ def nañ ko suul nañ ko fàtte nañ ko parce que réew mi mooy doxe noonu doomi réew mi ñoo bëggul seen bopp. doomi réew mi ñooy ñi nga xam ne da ngay dugg seen biir rey leen boo paree yow mi ngi leen rey yow ci sa bopp yow loo woote ñu ñëw wuyu si la maanaam ñu rey nit rek ñooñ lañuy ñuy topp Ablaye Wade rey na fukk ak juróom-benn Macky rey na fukk ñeent tëj ñaata nit ci kaso yi tey ñoom lañu àndal ñuy feetante di tuddante ay lestaat waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fal ñañu rey ci ñoom fukk ak juróom-benn fukk ñeent égal combien. égal combien dimbali len ma fukk fukk ñaar fukk juroom ben ak ñent fukk muy fanwer fanwer mérité won nañ dara ci lima ma yaakaar fanweeri nit fanweer fukk ak juróom benn ak fukk ak ñeent ñaata la way way dimbal len ma ci li fuk ak juróom ben ak fuk ak ñent ñaata la du dara ci yéen ñooñu konteetuñu duñu won ay bandi dooma adama ay xar lañ ay pitax lañ melni ku dugg ci dekk rek di reub til til ñan ñoo len ray duñu xamne xam ne dañoo ñëw fekk len ci dekk bëgg dekk ak bokk ak ñoom dekk bi dedet ñoo xamne ne dañoo bokk ak ñoom dekk bi ñoom ñoom ñu paré ne dañoo bëgg ngeen fal ñu ñu fal leen ñu fal leen ñooñu wëlbatiku top xalé yi di ray duñu ay jambur ñañu ray duñu ay jambur ña di tacc duñu ay jambur yéen ñepp bokku dekk bi lan mo dox seen digënté ak solidarité yeen yeen ay def lolu yeen ak seeni sëriñ yeen ay def lolu bu ñu reyee ba noppi dem xaritoog sëriñ si sëriñ si génnee jaxal joxe ni mu toog noppi seen responsabilité jeex na loolu lañ ci yàlla santoon bu ngeen nekkee ay doomu aadama suñu leen reyee génnee leen xaalis ngeen joxe ngeen toog ne pat pare ngeen ci wàccoo ngeen nag nit ña seen responsabilité wàcc na dootuma leen ko laajaat keroog yomal du am laaj sénégal lii de mooy sénégal 30 personnes 30 personnes ñaari nit rey leen Ablaye Wade Macky Sall trente personnes ñaari nit police yi fi nekkoon na fi nekkat gendarmerie bi fi nekkoon na fi nekkat l'armée bi fi nekkoon na fi nekkat les mêmes sénégalais ñoo fekkee waat trente person ñaar rey leen ñooy tuddalante l'État ñan ñoo dem ñañ fekk di leen rey yéen a demaat yéen ay génnaat tey jooy lekkool yi bu suba ngeen gennat ne sen coxi si ñuy toj balé douce bi pousse day kenn du len ko wax de ku len ko wax ngeen dafa rew ku len ko wax ngeen dafa rew da ngay xol li da ngay xol li kenn mënta wax li kenn mënta wax li ci si borom acca gars ubil ubbil naa la ligne bi ñu def benn vingt minutes pour jeeg ji bismillah. waaw Guy. ñu ngi lay jaar. da nga defaat ñu ngi lay jaar ma ne. ngi sant waaw. man la Fallou Diouf ma ngi nek États-Unis fii euh, Greensboro North Carolina. léegi man dama don jéem euh def participation ci sen copor bi mais man suma dougalé sama crédit card du dem quoi. ok bo dougalé crédit card bi du dem. dougal naa crédit carte mais mais demul waaw après dinaa la woo ñu xool nan la ñuy def pour mu mën a jàll dinañ la ko expliquer waaw dama ma ci waay dégg nga incha allah waaw mais nag maa ngi lay nuyu di la siyaare di vraiment di kontaan liggéey vraiment ah, di wax waa Amérique yëpp ñu ngi lay sant di la gërëm ñun ñëpp vraiment sa ñu ngi xaal nga taal ba ñu ba ñu ba ñu déglu information yi quoi ak yeneen tam moom vraiment moom mention spéciale lañ koy defal daal vraiment liggéeyam rafet na te waxtaan bi sell na te ni mu ko defee vraiment ah, jaar na yoon daal yooyu ngi ci gërëm di ko sant quoi. vraiment kontaan nañ ci moom xale yi ak jeunes yi même mag ñi sax gën a yee quoi ñu a xam information yi jóge Sénégal parce que lii vraiment mooy yeexal yi quoi parce que eh, lii lañ am woon bu njëkk xamuñu woon xew nit lañ doon dox di këndëng këndëng rek kenn du xam lu naqari kenn du xam nu mu demee mais du ma guddal vraiment seen groupe bi daal euh, yàlla na yàlla jàppale rek jërëjëf. macha allah kontaan nañu quoi bu baax quoi macha okay. jërëjëf information kañ fi mu toll nii ni ma leen ko waxee rek di ngeen def de di ngeen def de waaye ñun dañ leen di topp de <laughs> dañ leen di topp de di ngeen def di ngeen koy dégg te ñi ngeen di def dinañ xam ne da ngeen leen di def du ngeen rëcc de di ngeen def fii ci kaw suuf la leen yàlla commencé di jox mbugal gi parce que dañ leen koy wax ngeen koy dégg ngeen di xam ne yéen a ngi def waaye nag am na ay doomi làppato comme yéen yu ne ca kaw Yoham xamne dootu ñu demati mukk seug rew mi nekk ci seen banexu bakken dede dañ leen di top rek lu ngeen def sori nañ de waye dañuy rax seen biir comme ni ngeen rax suñu biir renseignement généraux ngeen yor ñoo leen gëna graw fo leen nat lo leen wax rek ñu suul ñu ngi leen di top nak suba ngoon guddeeg bëccëg lu ci way def jappal na sénégal nga ko defe de waye drone yaangi ci rew mi di wër jarut dox di gestu jarut ta teju ci nek jarut ta def leen fu ngeen teju rek ni rek ni rek dañ leen di dàkk rek duñ leen may dara dàkk rek topp rek bu leen yaboo nag yónnee leen jëli defi leen lu leen neex wax nañ leen ko ba ngeen ne réseau bi ku ci waxati nangam nangam lañ leen defi ne leen xolal danaa ko def te kenn du ko wax du fi am da ngeen di wàcc def rek wax dootul am waaye tànk yéen a nga aj téen rek ñoggal ku téen tëb tëb sax dañ koy def tep tep taxaw ci kaw air bi di yër danañ ko def bu yàlla da ngeen di jàng bon yes, ak bon ak kaya di mbon rek yàlla ya teral leen gënoo fee rafet gënoo fee baax gënoo fi juddu teralu yàlla dong yàlla def ci ay xolu nit ñu yëkkati vote jox la nga toog ne ci am mbon lay dox lu baax ma génne lu bon ma dugal dëkk ci rek faw am ñu wax di dinañ wax de dinañ wax de wax ba mu saf gat ngëj ngeen kenn du wax ñëpp ngeen fe nekk def ta kenn du wax kenn du wax fa fa fa fa la teg lool man ula def kenn waru ta wax ah kenn waru ta wax melni la laa yor yaak aw aka mom aka mo tous ñu ngi lay ziar mbokk allo. allo waaw. ñu ngi lay ziar salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Jiji ñu ngi lay bu baax man la Baye Saliou Faye fii ci tur waa Buenos Aires Argentine. ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di la jaajëfal. di la ko delloo. ñu ngi lay jaajëfal bu baax tey moom may am mbégte bu baax tey fi nga duggee ci maanaam Ndeye Khady Ndiaye dafa ma yëngal lool gëj na gëj naa sax participer damay damay teewlu rek. dëgg la. mais fi nga dugg tey moom yëngal na bu baax moo taxoon may woote pour bëgg a am ay information yu gën a leer rek pour nu ñu mën a def ba jàppale suñu jigéen boobu. jàppale ko ci kaw anam bu mun a doon rek ñu jàppale ko bu baax rek. dëgg la loolu rek moo taxoon moom ko woote quoi. waaw am na benn lit boo xam ne ñu ngi ko épinglé ci suuf. allo oui waaw am na benn lit boo xam ne ñu ngi ko épé benn lien bu ñu épinglé ci suuf. Uh-huh. boo bësee ci lien boobu dina la envoyé fi nga ko mënee dimbali. day dem directement ci kii bi Kopar Express. ah sinon noo sinon ku ku parce que affaire kii lu mu tudd technologique dama ci xereñul dara quoi moo taxoon ma bëggoon bu fekkee ne mën nga ma guider ci kaw beneen anam ba nga xam ne dinaa ko mën a def wala ma jaare ko ci yow. Uh-huh. ñu ñu ñu wax ci loolu noonu quoi. waaw d'accord léegi bu ma paree nii man dinañu wootante ñu xool ban moo ci gën a yomb. su ah, ma ah. guider la. wala nga envoyé ma dugal ma dugalal la ko allo. waaw ma ne bu ñu paree dinañu wootante comme ça ma guidé la. soo ci mën a génn nga envoyé ma ma dugalal la ko. baax na baax na jërëjëf euh, Jiji loolu daal boo ma ci mënoon a jàppale dinaa baax lool incha allah. loolu daal moo taxoon ma gën a kii am dugg tey pour euh, waxtaan ak yow quoi. macha allah après ñu ngi am mbégte bu di la jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf. ay ca ay ca ana jigen, ni jigen ni jigéen ñi gisuma de ñëw len ñëw len ñëw len ñëw len ah yéen nak mom xanaa man ndax man damay bëgg a jommi wala lan yéen seen moromu jigéen moom lañ teg lii ñu woote ne leen yéen wara dug a dugg live bi tey yéen a waroon de carte gi day tourné nak bi seen bosa bu ngeen duggul ci bii carte gi prochainement jigen une minute góor xabaabal mbir mom moom dama koy dem kali ci góor ñi parce que nag gis naa ne da ngeen dem ba mu yàgg xaw ma ndax seen jëkkër yi leen freiné xaw ma seen far yi xaw ma seen yaay yi xaw ma seen mbokk yi waaye nag xeex bii ku ci freiné fële di nga di nga glissé de ku ci freiné fële moom di nga dëgg ci banana ba sa ndong bu soobee yàlla dootoo ko tag xanaa crise moom nga ciy tag de pour tag ñaw du am de kol crise kenn wala épée wala seen affaire yooyu wen yoy courbe ni nga teg greffage ñu téye du fi amé di ngeen deug banana ba daanu de nañ leen freiné rek nangu leen a freiné xeex bi ñun ñep ko bok ñew leen wota leen na fi nafisatu wota leen ki jigen la man ëmb ma gungeew ma kuy ëmb yeenay ëmb ku ëmb lañ japp jox poson ben dom ba ne put mu déssé poson doon kërti kërti ñu ne ko do fi dunde jigen la de way iya, yena du ngeen dugg ngeen wax taxaw palaasam da ngeen di xaar ma jël leen seen kër yi wala yëkkati leen seen pooju jëkkër yi waa lii lii lii lii kan moo mën a wax lii dugg leen ngeen may ree dugg leen ñëw leen aca aca bu weesoo ya fii moom fi mu toll nii jigéen bu fi dugg une minute ñu ne la karaj bu fi taj bu fi jéem a wax de ha kii xam na ma ki xam kan na ma allo. allo. Iya, allo. waxal iya, waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ana daxaar. ñu lay ziar ma ngi ziar ni ci ligne bi. ñu ngi lay ziar. wa dinañ ci dinañ ci ki dinañ participer dinañ dem ci ah ñun moom dañuy ñun ñun ñu ngi ci de ñun dañuy dañuy ci de dañuy participer de. waxuma waxuma participer mais ngeen dugg ngeen dugg wax ko naqarlu ci yéen jigéen ñi. waaw loolu la ñun ah, ñun vraiment man dal ci eh, eh, Khady Diaye moom moom vraiment sama turandoo doom la sax ndeysaan. gis nga te dal vraiment man daf ma naqari torop torop torop doom sax foo koy waxee vraiment xari na ma de li ah, koy faj nag mooy maay eh, sonn sama moromu jigéen ñi. Ils dem copper express waaw voilà comme ça ñu règle problème une bonne fois pour toutes lii la man nag man nag maa ngi ñëw léegi dugal dugal bi dugal waaw am ben problème jërëjëf ñoo far jërëjëf acca ñëw leen ñëw leen ngeen sonju ñëw leen ngeen sonju seen moromu jigéen ñi da ngeen xaar allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum Cici. waaleykum salaam yaay booy wax d' abord. balaa ñuy wax waxoo Ndeye Khady Ndiaye. Mm-hmm. yal na la yàlla yokk sutura ak jàmm ak salaam. muy yow yal na leen yàlla musal ci lu ñuy gis ak lu gis. bu ñu sax na sunu poos yi woote ci Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye yàlla ko yàlla yàlla mi ko sàmm ba ko gën a sàmm may waxanteeg yow ci sama tapis lépp lu may ñaanal Ndeye Khady dama la koy ñaanal jiti yal na lu yàlla may wér ak kattan ñoo ngi participer ci poos bi three, three. maam seen ak ay sof yal na leen yàlla dolli sutura àdduna. amiin jërë ngeen jëf. amiin merci beaucoup. yaay boy. yal na la yàlla sàmm yow tamit defal la jàmm. ayca gis nga seen buntu yi laa fëgg. allo. monsieur Guèye salaamaaleykum. waaleykum salaam. nuyu naa la di la ziar. ñu ngi lay di wax rek que ni on compatit si Ndeye Khady démb live bu Akhen c'était vraiment vraiment émouvant xol yi tooy na mais nag affaire bi warul nekk yéen kese. lien Kopar Express bi patriote yëpp dañ ko war a partager. ñëpp jàpp te warul yem ci les activistes kese. combat bi ñëpp la donc Ndeye Khady tey ñëpp ñoo ko war a jàppale ndax mën nañu wax ne su dul woon moom nañ jàpp ne Ousmane Sonko vraiment tey du si moom bu changé woon version rek tey c'est mort léegi nag di woo sama moromu jigéen ñi ñoom ñëpp ñu ñëw euh, jàpp ci combat bi ku nekk loo am nga dugal bu dee mille bu dee deux mille bu dee dix vingt cinquante euros ku nekk di nga na nga dugal ñu jàppale ko incha allah yàlla taxaw ko. di la jaajëfal. di la wax bon bi di nuyu ak kenn aussi di ko jaajëfal. merci beaucoup jaajëf yow tamit nekkal ci jàmm. jaajëf yaay booy jërëjëf. ayca ayca ayca ñëw leen man buntu néeg yi laay fëgg dem ci néegu biir yi ci néegu biir yi laay dem fu ngeen tëdd ma loqati leen cuuraay du tàkk dara du tàkk am bi yëpp laay toj ñëw leen allo. allo. oui. man dama ok maa ci biir wala. waaw yaa ngi ci biir waaw. ah ok. Euh, euh, dañuy cotiser euh, Ndeye Khady. waaw. waaw ah, mais man dama bëggoon laaj pourquoi quoi lu tax bon lan la xewlee bañ ko war a cotiser ko d'accord jërëjëf. voilà gars ku mënta déglu pour xam lu xew. boo xamul li xew sénégal seetaanal ba comprendre li xew nga baal ma nag du wekk sedd dara waaye mënumaa di répété répété waat jot bi moo ñu ko may allo asalaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi naa def ñu ngi sant yàlla alhamdulilah massa coono maa ngi jéggal lu baax massa sa wàll yaay booy massa waaw waaw di la ñaanal yàlla yàlla yàlla fay la li nga def yëpp doomu aadama yi vraiment. kontaan nañ lool lool ci seen taxawaay yéen ñëpp ñoo def ñoom ak Akilaton ñoom Mam Seck ñoom Kayso euh, vraiment kontaan nañ lool lool lool. man nag ah. euh, émission bi tey daf ma touché tellement que benn message rek daa doon bugg a bugg a bugg a bugg a lancé euh, ñoom Adji Sarr vraiment xaw ma dëgg dama dégg wala du ma dégg mais. mu su ma doon dégg lii daal dina baax ndax aji xale la jigéen la mu ngi dugg ci loo xam ne vraiment man xaw ma xaw ma nan la ciy génne daal xaw ma nu mu ciy génne xaw ma ani ay mbokkam est-ce xam nañ li xew wala xamuñu ko wala boog ndax am na mbokk sax parce que ma yaakaar aji xëy na amul mbokk parce que kuñ ne dañ laa nga mën a nga nga au lieu que ne nekk ci say waajur nekk ci sa famille nekk ci sa askan nga nga nangu ay sàmba booy ay ay nit yoo xam ne dañoo dañoo jaay seen bopp jaay seen aam ñooñu dugg safara du dara ci ñoom loolu yépp xam na ko nga mën a nekk ci loolu di dégg li xew ci dëkk bi li ñuy wax ci situation bi yépp te moom mu antal daal mën a tëdd nelaw garde loolu yépp ci ci esprit am man loolu ma jaaxal man sama xol dafa jeex ba mënumaa wax vraiment ma xalaatee ndey xadi rek damay du du ma tax damay perte samay moo en fait. dëgg la may wax ne rek ay mbokki Adji Sarr c'est sûr que laaj yi ñu ciy def yëpp am na lu ñu ciy dégg dañ delloo ci seen xel lii àdduna dara jaru ko Adji jigéen la day jur day day ñaan yàlla xaw ma ndax jur na am jurul waaye day ñaan yàlla xëy na di day ñaan yàlla wut am njaboot te gis nga nit loo def ci lu bon allah ko fay. bu dul bi tam di feneen ci say njaboot tam dinañ ko fay lii dara jaru ko ci àdduna dara dara dara vraiment ñaaw na ñaaw na ba fañ kenn mënu koo sax calculé ci mataw nag Ndeye Khady Ndiaye bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla taxawaay bi ko taxaw ba léegi nii yal na ko gën a dëgëral i ko wax rek mu mu muñ incha allah ci la neex nit moom boo muñee rek di nga muñ incha allah lu mu métti métti rek xam nañ ne jigéen bu am ngor la fonk boppam parce que bu ko neexoon mu récupérer ay millions yuñ ko yuñ ko jig dem defi ne defi comme ñëpp gis nag comme ñëpp waaye dafa toog am ngor vraiment ñu ngi koy jaajëfal di ko gërëm gërëm ay waajuram ñu ko yaar yar bi ko may mu nekk ci dëgg dund dëgg vraiment merci beaucoup Jidi man sama xol dafa jeex mosuma dugg ci live nag di woote dama doon damay tiite rek mais dama woote mais sama tok dama jéem ba mané xala mo wote ma essayé wax nga mënu ma tax wax la bëgg wax yëpp. vraiment merci beaucoup. ma sha allah lay participé incha allah. jërëjëf jërëjëf yaay boy. ma sha allah ma sha allah. yaay ya ngok yaay yi ñëw nañ. allo allo. allo. Jiji. oui. Allô? oui mais moi. a woote sànq ah. Hein? allo. oui allo. Allô? allo maa Allô. Allô? allo. allo mais mais bien sûr vais lay couper parce que dañu nekk live si tu ne comprends pas ce qui se passe je n'ai pas le temps pour m'expliquer. expliquer après je vais expliquer mais pas ci live. Non, allez, on continue là. Parce que... Bismillah. asalaamaaleykum. Wa salaam. maa Mang lay nuyu Jiji bu baax. ñu ngi lay nuyu papa. Mang ngi axee ah, ah, ne mang nuyu kay Feuz maa di sant bu baax di leen ñaanal Yalla Yalla guddal seen fan wëral seen cër Yalla na leen fi Yalla bàyyi nu mu gëna a Ndax ndaxte sama xol dafa depuis hier dina de pleurer bima ma dégloo axee ah, na toon mu wax. dama xool bi ci ci ci naqar laa nekk fu ma nekk nii quoi te ñu ne Sénégal ay julli lañu ñu ne Sénégal ay ay confrères yi ñoo ñu jiite Tijaan Murit Xaadir euh, Laayeen ñu ne ñoo ñu jiite ñoo nekk biir Sénégal fii ñu gis lii ñu def ko suñuy doom ñu def ko ñu def ko suñuy doom ñu def ko suñuy doom ñu toog kenn kenn du construire yéen ñi nekk yéen ñi nekk ca àll bi yéen ñi nekk di construire tey yéen ñi nekk daal yéen ñi nekk di construire pour di mën a ko déglu ñu nekk ay jullit Üstümü bakın çakılı bakın çakılı bakın tamam Messi. Tamam Messi Messi kanı ayağla. Ay gülün nasıl? Bir ay gülün nasıl? Ben güç. Tutsayım tam ñu ko toroxal. Nit ñu ko toroxal. Kenn mënul jël tam dimbale ko. Personne. personne du kenn ku jóg tey jàppale xale bi ba yéen yéen nekk bitim réew di daal seen tool yéen a ngi di jóg di jàppale xale bi. te mu nekk doomi doomi réew mi nekk doomi julli di daan dooleem amul kenn ku ko jàppale amul kenn ku ko dimbale tey lu muy yéen te ñun ñu nekk fi jege ko lool mbokk mi nekk fi lool julli di nekk fi lool sëriñ si nekk fi lool ba bu set ñuy waare ba bu set ñuy wax affaire diine ak affaire lislaam te jëfewuñ ci dara jëfewuñ ci dara lii métti na ma ba ci kanamu yàlla wante nag yàlla yàlla na yàlla atte ndey xati man de lu ma ci mën a aw ma dara mais danaa ci dugal samay participation sama participation bu soobee yàlla maa ngi koy ñaanal yal na may ko wër a wërle yal na yàlla màggal doomam yàlla barkeel ko moom ci boppam yàlla defa ko jàmm defal ko salaam musul ko ci noonee gis ma mënatuma continuer j'aimerais là j'aimerais là ji waaw ba beneen live quoi